nekk réewu démocratie fexe ba képp vote bu am ni ñuy ñëw voté si jàmm tànn ki leen gënal sunu paree nu ñibbi seen kër suñu paree nu ñibbi seen kër hmm. loolu laa doon ñaan te loolu laa gis fii yàlla na yàlla def mu tasaare fépp fi Sénégal fii nag dafa am dëgg la loo xam ni sama warugaru citoyen citoyen la mooy ma ñëw voté waaye nag aussi dafa am sama warugaru taalibe taalibe goo xam ni lu sëñ bi dogal rek nga ànd si sawar si moo tax ma ñëw voté si su doon nag ñaar ay liste yu bëree am Touba kon duma taxaw fii di wax ni dama ñëw voté si liste bi nga xam ni mooy liste sëriñ bi fii comme benn liste la ma wax la ni sama cëru taalibe dama voté list bi nga xam ni moom la sëriñ bi samp te yaakaar naa ni képp koo xam ni taalibe nga daa def na man ndax kat taalibe ndigal lay jëfee te ñun kat li nu bëgg mooy li sëñ bi joxañ kon loolu mooy sama taxawaay fii taxawaayu citoyen taxawaayu taalibe ma ñëw voté list bi nga xam ni sëriñ bi moom la taxawal en tant que taalibe. bi am bi euh, violence bi nekk na lu ma naqadi lool ndax Sénégal. dafa war nekk réewu démocratie boo xam ni lu waay bëgg mu mën ko jëfe ci kaw mu tekk ci yoon lu waay xalaat mu mën ko wax ci kaw mu tekk ci yoon kon wax dëgg yàlla violence dafa ñaaw ci deru Sénégal ndax élection yi war na ñëw ki nekk seet ki la gënal nga ànd ak moom defal ko campagne ki la gënal aussi nga jàppale ko fexe ba mu jàll kon képp koo xam danga bokk ci violence boobu def nga loo xam ni tebbi nga yoon waaye yaa ngi yàq deru Sénégal moo tax maa ngi ñaan élection yi na jeex si jàmm campagne bi bëri na violence waaye nag tey na lépp am si jàmm lépp mujj si jàmm ba ëllëg ñëpp mën dem xëy doxi seen soxla loolu lay ñaan te aussi jar na aussi loo xam ni ma leeral leen ko yàgg nañu bind ni ma dikke mooy doon futur maire loolu nag jar tey ma leer ko bu leen fàttali njëkk naa génne benn communiqué démentir ni mo sëriñ bi ma su ko wax ak man sëriñ siidi di sama xarit di sama sëriñ mosu ko wax ak man te man loolu mosul nekk loolu mosul nekk sama itte xam nga man lan mooy sama itte teeloon naa ko démentir lan mooy sama itte mooy seet lu sëriñ bi bëgg ma fekk ka si laxasu laxasu liggéey ka ba am si ngërëmam moo tax bi ma sëñ bi waxee ni ma li ma bëgg mooy nga taxaw liggéeyal askan wi kenn déggu ma ma yëngatu si politique damay déglu rek lu ma joxoñ nekk foofu la foofu la sama bëgg-bëgg di jëm fala sama doole di jëm te damay ñaan nag ngërëmal sëñ Tuubaa jiitu ma sa te ma mujje ak ngërëmal sëñ Tuubaa kon nag ñun taalibe yi ñoo war gën doon exemple si Sénégal exemple bi nan lañ koy defee mooy déglu ndigal jëfe ko suñ dégloo ndigal jëfe ko rek kenn du réer kenn du réer kon nag sama mbokk Sénégal yëpp maa ngi leen wax élection du dara dul tànn ki nga xam ni moom nga bëgg mu jiite la loolu nag man nga ko defee si jàmm te mën na mujj si jàmm te maa ngi euh, ñaan yàlla def lépp mujj si jàmm. waaye nag gëm naa ne ak ñaanu sëñ mun Muntaxa ak taxawaayu sëñ Muntaxa ak ñaanu sëñ Babacar Sy Mansour ak kilifa diine yëpp fii jàmm rek a fi mën am. bu leen fàtte ni waxu sëñ Cheikh Sidi Maxtaar ga wax na ni jàmm rek keneen ku fi bëgg indi leneen sa kaw lay këpp kon nag nanu wut ñun ñëpp jàmm na ñëpp doxal jàmm jàmm ji nag du du benn parti rek ka moom de jàmm ji ñëpp ka moom xam nga jàmm du benn parti rek su kii di wut jàmm kii di wut ay ay day am waaye su fekkee ne nag ñëpp wutandoo jàmm na ñëpp wutandoo jàmm na pouvoir wut jàmm na opposition wut jàmm na société civile wut jàmm na Sénégalais bi nga xam ne bokkul fenn boppam la gëm xalaatam la gëm na wut jàmm. suñu wutee jàmm rek jàmm sax Sénégal te jàmm nag mooy taaru Sénégal Sénégal lu jiitu muy am pétrole wala or lan lan ko daan ñeewee mooy jàmm ji fi sax. kon jàmm jooju nan ko sàmm suñ ko sàmmee ëllëg daanu mën jëriñu Sénégal rawatina nag sunu doom yi nga xam ni ñooy yor ëllëg daanu gën mën jariñoo Sénégal kon jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Mountakha li fa diine yëpp